mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu jotee ngeen di baaxoo di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di daral ki nga xamante ne moom moo di Abdoulaye Loum Abdoulaye Loum nekk président de l' association sénégalaise des hémophiles du Sénégal Abdoulaye Loum ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu ñu ngi lay sant di la gërëm ci nangu bi nga xamante ne nangu nga ko uyu ci suñu invitation bi. bile. Euh, asalaamaaleykum maa ngi nuyu dèjà yow maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs Rewmi FM yëpp di leen jaajëfee ci invitation bi ngeen ñu invité. Euh, sant ko gërëm ko Abdoulaye ñu tàmbalee waxtaan bi ci seen euh, kuréel bi di association sénégalaise des hémophiles du Sénégal bëggoon xam rek ci ban moment ngeen ko daal di taxawal. waaw association bi comme ni nga ko waxee association sénégalaise des hémophiles. ñu ngi ko créé dans les années quatre-vingt-dix dans mille neuf cent quatre-vingt-quatorze suñu benn suñu ay mama ñoom ñoo ko ñoo def mbooloo créé ko pour mën a doxal tamit waxalaane ñi nga xamante ne ñoom ñoo am hémophilie ak seen ay mbokk. Euh, euh, tey hémophilie dafa mel ni nekkul jàngoro boo xamante ne askan wi xam nañ ko euh, boo leen doon xamle lii di hémophilie lan nga leen ci mën a wax pour ñu koy déglu gën a xam boobu la jàngoro. waaw tey buñ ko doon expliquer dañuy wax ne hémophilie feebaru deret la maanaam. ku nga xamante ne dafa nekk di nàcc deretam dafay am jafe-jafe pour mu woy maanaam day am jafe-jafe pour nàcc-nàcc bi arrêté donc ki nga xamante ne dafa ami hémophilie bokk ki nga xamante ne amul hémophilie ki am hémophilie moom tey bu daggee ki ki amul hémophilie sax laay commencé moom bu daggee day toog diir lu yàggul dara nàcc-nàcc bi day arrêté ka mu nekk nàcc-nàcc buy génn sa yaram wala bi nekk sa biir yaram mais ki nga xamante ne moom hémophilie dafay am problème Euh, wayum deret maanaam nàcc nàcc bi bu tàmbalee pour mu arrêter dafay yàgg te pour mu arrêter aussi il faut dafa am loo xamante ne moom lay jël pour euh, nàcc nàcc bi mën a arrêter donc ci gàttal mën naa ne hémophilie tey feebaru deret la ki nga xamante ne moom bu daggee te mu nekk hémophilie dafay continuer di nàcc parce que lii tax deret bi di arrêter. wala muy way moom loolu la amul ci deretam. Euh, ndax nekk na jàngoro jàngoro boo xamante ne neex nañ ko détecter parce que euh, euh, daanu am deret bëri na dagg am deret bëri na ndax neex na ñu ràññee ko ne lii jàngoro bi moo dal kii doomu aadama bi. bon balaa may wax ci neex a ci neex a ràññee. Mhm. déjà damay wax ci est-ce que nit ñi xam nañ feebar bi. parce que ñi nga xaman mën naa ne feebar bi ñi ko xam tey euh, bariwul. Mhm. bariwul trop tey côté population. Mhm. comme côté médecin. Euh, côté médecin bi sax mën naa ne xam nañ tur bi mais lu ci bari. duñ ko gëstu ba xam ne ba gis na tey peut-être nit ki bu amee yenn symptômes bi seen xel mën a dem ci kii hémophile la am. Mhm. su ma ñëwee ci côté population bi mën naa ne ñi ko xam bariwuñu bariwuñu dara tey bu may jël exemple tey euh, xayma bi ñuy xayma dañ naan ci euh, dix mille naissance bu nekk ni mu gàtt gàtt war nañ ci am kenn koo xam ne hémophile la. Mhm. te tey buñ ko euh, xoolee ci population Sénégal bi ñu ngi ci dix sept millions. Mhm. donc lu mu gàtt gàtt waroon nañ am daanaka mille sept cent hémophile. te xayma bi ñu xayma ñun hémophiles yi nga xam jot nañ ko gis matul sax trois cent cinquante donc gis nga loolu da lay war na tey euh, nit ñi am nañ ko man mën naa ne nit ñi am nañ ko mais xamuñu ko di nga gis koo xamante ne tey dina am symptômes yi di nàcc nàcc boo xamante ne day të arrêté wala balaa moo arrêté day yàgg mais ñàkk ñàkk xam maladi boobu moo tax tey recensement boobu ñu def ñu ñu toll ci xayma boobu donc mën naa ne euh, du maladie boo xamante ne nit ñi xam nañ ko. Euh, du maladie boo xamante ne nit ñi xam nañ ko waaye ci beneen wàll aussi yaa ngi wax ne médecin yi xam naa seen gëstu euh, bëriwul ci côté boobu lan nga jàpp ne moom mooy expliquer eh, ñaari fànn yooyu. waaw mooy mooy mooy ñàkk xam bi ma bi bi ma lay wax rek comme ni ma ko waxee sànq mën nga xam tur bi. Mhm. mais comme rarement nga koy gis. wala aussi boo ko gisee sax xel du dem ci ne ah kii kat mën na nekk hémophile loolu mooy waral tey euh, mbir mi di tëddee noonu. Mm-hmm. parce que boo xoolee dañuy faral di jël ay ay exemple ci nga xamante ne ay yaayu hémophile lañ wala ay hémophile ci boppam dañuy nekk di nàcc nàcc lu bari mais il suffit que benn ci ci ci diir bu yàgg benn nit mooy koy gis xelam dem ci loolu. Mm-hmm. ñu doog ko mën a defal euh, ay test pour xam ndax hémophile la wala du hémophile. Mm-hmm. te nit ñi ko am aussi su ma jëlee ñi nga xamante ne dañuy nekk ci biir réew mi. Mhm. ñoom aussi dafay métti trop pour que nit ñi mën a xam ne hémophile la donc loolu moo moo tax tey ñun ci suñu ay analyse ñu nekkoon nit ñi xamuñu ko parce que bu fekkoon ne loo xamante ne comme tey feebar yi la muy muy wala yeneen yi nga xamante ne tey bu ñu demee ci kër docteur buñ la xoolee rek dañuy ñor mhm. ñun loolu lañ amagul. Mhm. looloo lañ amagul moo tax tey ma ne feebar bi tax nekk na loo xamante ne ñu bari xam ñu bien vrai que symptômes yi day am da ngay gis kuy nàcc lu bari. Mhm. mais doo ko foogee parce que tur bi mën nga koo xam ni mais doo gëstu bi bariwul wala communication bi taxu koo demee noonu mhm. ba boo gisee ko am symptômes yooyu. Mhm. doo doo doo doo njort ne kii hémophile la am. waaw doo ci doo njort ne hémophile la am. Euh, nga jiite association euh, sénégalaise des hémophiles euh, du Sénégal ñu jàpp ne rek kon certainement yaa ngi am jàngoro bii di hémophile tey Abdoulaye Loum boo ñu doon wax ci ban moment de la vie nga détecté lañ la détectel jàngoro bi ma ma préciser rek hémophilie tamit feebaru ndono la maanaam da nga koy donn ci say ci say ci donc man bi ma juddoo ba léegi ngi ko am maa ngi doon am symptômes yi nag parce que symptômes yi tamit mën na parce que mën na nekk nàcc-nàcc boo xamante ne dafay génn sa yaram nga koy gis wala mu nekk nàcc-nàcc boo xamante ne dafay nekk sa biir yaram moom lay tubaab di wax hémorragie interne donc loolu fi muy gën a faral di am mooy sa articulation yi sa uum yeeg sa conc yi mm-hmm. yooyu man lu ci bari daf ma doon dal muy néewi neewi tàng bu tàngee aussi dafay ànd ak métit bu tar ba pare ni nga doon mën a yëngalee sa cër yi dootoo ko mënati donc dafay war loolu mooy tax di nga toog benn une semaine wala deux semaines doo mën a yëngu mais loolu ñun dañ doon toog noonu rek ndi def yenn traitement yi nga xamante ne moom lañ doon digal te du woon loolu moo ko doon faj léegi bi ñu demee ba ma am ay euh, ñaar fukki at ñaar wala ñett euh, affaire bi daaneel ma. Mhm. ma dem hôpital ci lañ dajeeg benn infirmier boo xamante ne kooku xam naa am na njortul ne am na ku mu dajal ko am hémophilie mhm. ba ma ko jot ci gës bi mu gës bi mu ma xoolee ñu expliqué ko ci lañ ne kii est-ce que amul hémophilie. tout donc bi mu waxee loolu te la ñu orienté fi nga xamante ne mooy centre national de transfusion sanguine bi ñu demee foofu ci lañ expliqué docteur bi ñu dafa ñu test effectivement mu mu wane ne man feebar boobu dama ko am. Mhm. Mm-hmm. Euh, nga dund ak moom nekk xale ba am yenn âge ñu bëggoon xam rek euh, ci yooyu les moments apparemment yaa ngi doon jàng wala pare nga sa jàng ndax euh, maladie bi amul lenn loo xamante ne xaw na ko ralentir moo xam ci sa cursus wala ci bërëbu liggéeykaay bi nga nekk ndax bu la farataalee di daaneel amul benn handicap entre guillemets bu mula doon jural. waaw feebar bi moom liñ ci mën a wax mooy du la tere nga dund. Mm-hmm. waaye dina na tere nga dund ni nga bëgg a dundee parce que ku am hémophilie dañ koy faral wax do football doo bëre doo def yenn foo yi nga xamante ne dafay am ay dooranteeg yooyu donc loolu yëpp dafay nekk loo xamante ne da ngay obligé jël ko tegee ko boor di dund dund boo xamante ne moom lañ la digal donc loolu déjà rek. ci xale. dafa dafa dafa metti nga nekk xale bu ndaw gis say moroom di foo di daw di dàqee yow boo jógee rek ñu ne la toogal loolu dafa dafa xaw a metti ci xale. Mhm. kooku mooy benn ñaareel bi si njàng mi. maa ngi lay wax sànq naan bu feebar bi yëngalee bu fekkee du naaj naaj boo xamante ne euh, deret bi day génn sa biir yaram hémorragie interne sa articulation yi lay jàpp te dafay néewi di métti. Mhm. te ñëpp xam ne articulation bu neewee dootoo ko mën a utiliser ni nga ko doon jëfandikoo ni nga ko war a jëfandikoo mm. rawatina nag bu nekkee say say oom boobu da ngay daal di immobiliser ñaar benn semaine ba ñaari semaine imagine xale bi toog benn semaine ba ñaari semaine demul jàngi waaw deful mouvement demul jàngi dina rate ay cours dina rate lu bari donc loolu aussi dafay nekk loo xamante ne dina ko mën na ko yàqal lu bari mën naa ne sax mën na ko yàqal jàngam parce que bu koy dal souvent dina toog ay jours yu bari du dem jàngi te loolu mën nañ dem sax ba bu fekkee ne amul ay parents yu koy accompagner ni mu waree fi muy jàngee aussi ñu am benn compréhension bii nii mën na ko mën na ko yàq mën naa ne mën na ko yàqal jàngam waaw man nag peut-être amoon na chance yooyu yëpp amoon naa ko donc moo waral tey man mujj naa def sama cursus yëpp normal mais lu lu mat a bàyyi xel lu mat a bàyyi xel la ci parents yi lu mat a bàyyi xel ci école yi ñuy jàngee pour ñu xam ne kii feebar bii la am te nii la nii la tëddee. Euh, wax nga ko ci sa biir wax euh, nekk xale peut-être mënoo bëree mënoo football euh, te pourtant dañuy wax nit dafa wax a pratiquer peut-être yenn discipline sportive yi wala sport pour xam naa maintenir hygiène de vie am tey jii ndax le fait que ngeen bañ a def pratiquer yenn sport ci seen diagnostic ak yooyu mënul nekk aussi c'est vrai que c'est pour le bien-être mais ndax à ce moment aussi amul yeneen jàngoro yu mu leen mën a jural wala defu sport vous êtes euh, peinard euh, comme les autres. bon déjà même du ma sax wax waxi hémophilie bu hmm. dul dara sport moom ñëpp xam nañ dafa baax ci yaram dafa baax ci dafay tax ngay renforcer sa sa sa musculation hmm. dafay tax aussi tey am na yenn feebar mën naa ne yu bari mën na la bañ a dal bu ma ko andiwaatee si ñun nag hmm. ñun tey suñu jëlee benn articulation mu néewi xam nga doo yëngatu boo toogee deux semaines yëngatuwoo muscle bi fonctionné wul mm. te muscle bu fonctionné wul du du am kàttan te bu amul kàttan tey pour nga gaañu ci dafay yomb mm-hmm. te ñun eh, hémophilie dafa am ñi nga xamante ne ñett ñetti façon hémophile dafa am hémophile mineur am hémophile modéré am hémophile sévère hémophile mineur bi moom li muy nàcc bariwul mm-hmm. waaw hémophile euh, modéré bi dina nàcc mais nàcc nàcc bi mooy gën a bari que mineur hémophile sévère bi nag damay faral di tooñ naan boo ko xoolee sax mun na mu nàcc moom li muy nàcc dafay bari waaw boo xoolal tey koo xamante ne hémophile euh, sévère la deful sport musculaire mi du du ñu fonctionner hmm. donc du am renforcement musculaire gaañu gaañu da koy yomb kon kooku faux pas bu ko defee wala mu jug nu mu warul a jugee rek dina am benn euh, gaañu gaañu boo xam ne peut-être ci biir yaramam lay nekk hmm. te bu boobaa dafay gën a yomb pour muy nàcc hmm. donc sport moom ñun dañoo am nuñ ko war a defee mm. mais daño war a def sport. mu mel ni ba léegi loolu yëpp c'est un peu plus contraignant. waaw dafay dafay dafay dafay dafay métti dafay métti dundee parce que koo xamante ne comme ni ma la ko waxee sànq du la tere nga dund mais dina la tere nga dund. da merci beaucoup da lay limité li nga bëgg def yëpp doo ko mën a def. Mm. te sport bi aussi bon. man su ma jëlee sama exemple man tey man damay def sport mhm. mais sama sport dama koy surveiller mhm. tey euh, nee naa dañuy tere yenn yenn sport yi moom dañ koy tere looy football bëreg yooyu mais am na sport yoo xam ne tamit mën nga ko def mhm. lii di natation lii di vélo a condition que nga protéger wu sol casque sol genouillère coudière yooyu yëpp mën nga ko def def sa marche yooyu yëpp mën nga ko def ay xeetu sport la yoo xamante ne war nga ko mën a def li ñu li ñu li wérte wóor daal mooy sport moom nga feebar nga ñàkk feebar danga ko war a def mhm. mais bu dee da nga feebar rawatina nga am hémophilie mhm. da ngay def sport yi nga xamante ne moom lañ la digal. Mhm. yenn yi nga xamante ne xam naa day nekk seen passion ay football ak yooyu certainement ci petit écran bi ngeen koy gën a farataal di di di di seetaane ñu dellu si ci li nga xamante ne moom moo di association bi wax nga date bi nga koy ko créer waaye dañu bëggoon xam rek euh, lan mooy origine bi concrètement. Euh, origine bi maa ngi lay wax sànq naan suñu ay mama suñu ay papa ñoom ñoo boole woon mhm. créer association bi mhm. association bi déjà feebar bi nit ñi xamuñu ko woon donc xamuñu ko donc par conséquent association amul woon mhm. mais daf ci am suñu benn maman boo xamante ne moom doomam hémophile la woon te ci euh, gaañu-gaañu yi nii la jaaree ñàkk ci bakkanam donc nag loolu bi mu amee ñoom ñu xool xam ne ah ñoom lii seen xeex na te buñ ko deful kenn du leen ko defal moo tax ñu décider def comme euh, benn mbooloo def association tuddee ko association sénégalaise des hémophiles foofu mën naa ne foofu la foofu la soqee ko waaw association association bi naka la ñuy def ba ba ba ci association boobule Euh, association bi man damay damay wax ne déjà euh, ñëpp ci lañ bokk ñëpp ci lañ war a bokk. Mm-hmm. parce que loo xamante ne dafay euh, du ma sax xeex wala dafay dafay dox di wax loo xamante ne dafay tax nit ki nga xamante ne hémophilie la am. Mm-hmm. dundinam gën a gën a mën a neex kooku ñëpp dañ ci war a jàpp. Mm-hmm. déjà dañ ko dañ ko ubbi nga nekk hémophile nga nekk parent d'hémophile wala nga nekk sympathisant. képp ku ñëw rek mën nga intégrer mofil récemment nag commencé nañ di di jaay ay carte de membre mhm. yoo xamante ne tey boo ko amee day firndeel ne que ne yow bokk nga Euh, bu baax ci biir association bi nga xamante ne mooy association sénégalaise des hémophiles donc yooyu aussi ku ko soxla rek mën nga mën nga jege si si ci association bi bu ko defee euh, ñu ñu mën la ci mën na koy cherul dara benn carte ñu ngi koy jaayee mille francs mm-hmm. mais da ngay gis koo xamante ne bonne volonté la dafay jaar mille francs mais moom dafay joxe plus pour mën a am carte boobu noonu Euh, justement ci bonne volonté yooyu sax ci lay ñëw xam nañ ne ku wax euh, association il faut nga am peut-être euh, boo amul fonds de roulement aussi di nga am ñoo xamante ne dañuy def ay œuvre de bienfaisance ay mécènes entre autres tey jii ñu bëggoon xam seen association bi bi ngeen ko taxawalee ba léegi ñan ñoo leen di eh, venir en aide pour ngeen mën a am médicament Oh, waaw euh, par rapport ak médicament boobu balaa boo ma ko permettre balaa may wax ci venir en aide pour ñu am médicament ba il faut ma expliquer tuuti médicament boobu nu muy demee parce que médicament bi ñun fii amul Sénégal. Mm-hmm. xam nga amul Sénégal tey koo xamante ne dafa soj wala mu palu dañ koy bindal ordonnance bu dem ci pharmacie bi jënd garab bi mm-hmm. ñun suñu garab demeewul noonu maanaam pharmacie du ko jaay. te amuñu ko koy jaay fii Sénégal parce que tout simplement amu fi garab yi ñu ngi koy amee association bi dafa affilié wu ci benn euh, mbootaay bu ñuy tuddee fédération mondiale des hémophiles boo xamante ne lu lu ëpp cent soixante pays ci àdduna bi yëpp ci moom lañ bokk mm-hmm. ñun garab yi ñuy am moom moo koy may don la fédération mondiale de l'hémophilie moo koy may association sénégalaise les hémophiles. Mhm. di ko jaarale nag euh, ci centre national euh, transfusion sanguine garab yi ñun noonu lañ koy ame mhm. moo tax ma ne la balaa may wax ci ñi lay mhm. jàppaleeg yooyu noonu il faut que expliquer garab yi nuñ koy amee. donc loolu bu leeree ba fi may wax ak yow nii amaguñu koo xamante ne volontaire na pour di ñu pour jëndal ñu garab yooyu ñu koy am ordre yi ñu koy amee. loolu amagul. loolu mooy benn euh, bëgg nañ ko nag ku ñu ko ku ñu ko defaral moom vraiment ñu ñu jël parce que loo xamante ne dañ la koy may bés bu mayee boobu arrêté te ñun du ñu jël leneen lu dul garab boobu loolu kese mooy arrêté suñu ay naaj naaj donc dafay dafay daal di doy waar. Euh, mais Abdoulaye Loum kon dañuy taxaw foofu rek euh, association bi nga ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo am jàngoro bi di hémophile amuñu possibilité am douleur dem au niveau des pharmacies jënd fa garab il faut que rek euh, ñu am don mais loolu ça doit être compliqué parce que quand on parle de don on suppose que yenn saay dina am rupture wala nga dem yenn saay peut-être garab bi nga waroon jël dosage bi nekku fi mais loolu naka nga ñu ko mën a expliquer pour ñu ñuy déglu gën a mën a comprendre pour dëggal li ngay wax nii rek euh, at bi ñu génn maanaam deux mille vingt et un diggante janvier ak février don yi ñu waroon may ak seegul woon Sénégal donc toog na ñaari weer yoo xamante ne garab yi amuñu ko donc boo amee dagg-dagg wala nga gaañu am saignement boo demee fi nga xamante ne foofu la ñu koy joxe gaa sax dinañ jéem a xool naka la ñuy def mais garab yooyu amu fa. imagine nag ki nga xamante ne tey dafa nekk ba fële Koumpentoum mbaa Tambacounda amul garab yi. Mhm. kooku naka la war a dunde jëlale naa sax ñun ñi nga xamante ne ñun ñu ngi fii Dakar ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir région yi ay Fouta ak Koumpentoum imagine rek koo xamante ne yow amoo garab boobu noonu nga am doom boo xamante ne day naaj. naka la ko war a dundee xam nga mhm. loolu dafay daal di doy waar. Mhm. moo taxit diggante janvier ak février deux mille vingt et un moom sonnoon nañ torop sonnoon nañ torop et possession wu don bi comment est-ce que naka ngeen di def parce que je suppose que comme que euh, don la dafa am euh, da ngay rang wala dafa am ay critères yoo remplir wala bu garab bi ñëwee rek euh, dañuy woote au niveau de l'association l'association autant pour moi pour mun leen faire comprendre que ne médicaments yi ñu ngi fi comment ça se passe parce que lu loo dul ci boutique wala yoo dul jënd ci pharmacie da ngay mujj obligé di xaar ñu jox la ko ma foi je je je suppose que ça doit Euh, mën naa ne compliqué na mën naa ne compliqué wul mm. parce que ma profito tamit di di remercier mm. waa CNTS vraiment parce que ñu ngi ci ni ko gars yi di waxee ñu ngi ciy jàpp am na benn organisation bu fa boo xamante ne tey boo boo ñëwee rek bu dee hémophile nga ñu defal na sa consultation xam ne da nga war a jël garab bi mm-hmm. dañ na koy defal garab bi nag li gënoon mooy nga koy jël euh, lu mu gàtt-gàtt benn yoon ci semaine bi bu dee am nga ko waaw parce que dafay nekk dafa nekk garab boo xamante ne boo ko piqûre vingt quatre heures lay def sa yaram mu daal di jeex. vingt quatre lay waaw lay nekk sa yaram dafay jeex bu vingt quatre heures yooyu jeexee dootul amati gaa sax léegi am na ay yeneen garab yu bees yoo xamante ne génn na uh-huh. yooyu moom buñ la ko piqûre dina dina mën nga toog un mois balaa nga koy piqûre waat. Uh-huh. mais yi ñu njëkkoon am noonu lay demee par rapport ak nag euh, accessibilité bi fi nga xamante ne fa lañ koy stocké mooy centre national transfusion sanguine boo ñëwee automatiquement bu dee hémophile nga dañ la koy dañ la koy jox parce que foofu tamit am na benn organisation boo xamante ne am na fa bu ñu xamee ne diw hémophile dañ lay war a defal nga rapidement ñu defal la facteurs yi parce que garab yi facteur lañ koy tuddee xam facteur huit ak facteur neuf mhm. facteur moom la ki nga xamante ne hémophile A la moom lay jël facteur neuf ki nga xamante ne hémophile B la moom lay jël mais euh, bu dee mi ngi synthèse moom te quantité bi fa nekk doy na boo fa demee doo am jafe-jafe pour jot ci doo am jafe-jafe pour jot li li li li li ñuy li ñuy ragal kañ mooy nga dem synthèse ñu ne la garab bi amu fa bu boobaa moom waaw mooy li ma la wax sànq rek mois bële bon rarement quand mm-hmm. mais at bi ñu génn nii toog na ñaari weer yoo xamante ne garab bi amu fi woon. Mm-hmm. amu fi woon te jafe na trop. Euh, Abdoulaye kon su ma la comprendre bu baax mooy tey prise en charge bi nga xamante ne moo soxal jàngoro bi di hémophile yombul. non yombul moom yomb moom def ko boo toogee jóg sax mën nga am gaañu gaañu boo xamante ne da ngay nàcc te xam nañ ne deret moom moo yor nit. Mhm. kooku beneen affaire la te li ci li ci gën a grave mooy conséquences yi nàcc nàcc yooyu mën a am. conséquences yooyu mën na la yàqal say articulation tey boo xoolee man am naa problème mu genou. Mhm. ni muy faral faral di nàcc lu bari day dem ba sa yax yi. da koy da koy mën naa ne da koy lekk. Mm-hmm. donc yow tey bu fekkoon ne lu doon tàllee ko normalement di banko mobilité boobu noonu lu ci bari da koy ñàkk. Mm-hmm. te boo boo amul euh, yenn pastéef yi rek mën nga dem ba sa tànk sax dootoo ci mën a dox ni nga ci war a doxee. Mm-hmm. donc feebar bi métti na métti na trop métti na trop xam nga sànq maa ngi laan naan da koy da nga koy judduwaale. imagine ñun sax peut-être ay mag lañ mën na gérer suñu bopp mais mm-hmm. imagine xale bu ndaw xamul rañewul koku dafay dafay jafe torop ci ci moom. Mm-hmm. jafe-jafe ci moom. Mm-hmm. tey tey tamit euh, bokkoon na ci seen euh, cri de cœur wala plaidoyer ñu defal leen euh, certainement gratuité gratuité des des des médicaments wala gratuité des soins lan nga ñu ci mën a wax. gratuité boobu dama la ci booleel accessibilité parce que nee naa la sànq garab yi ñu ngi koy stocké au niveau centre national transfusion sanguine déjà ñun ak suñu initiative bopp ak waa synthèse ak yi nga xamante ne yenn démembrement yi am nañ ko ñu ngi jéem a di di di am ay médecins ci yenn région yi mhm. yoo xamante ne dinañ xam nu nu nu ñuy jëlee en charge fil ñu fay stock bi ñuy am fii ñu jéem a di ko yóbbu pour ñu am ci mais Euh, gratuité bi déjà moom kooku dama ciy dellu waat parce que tey su ma jëlee garab bi xale bu am vingt cinq kilos bu fekkee ne dafay naaj dina jël ay flakon yoo xamante ne cinq cent unités lay doon te cinq cent unités yooyu dina ko jël nu mu gàtt gàtt par dina dina ci jël ñaari ñaari flacon te dina ko jël lu mat ñett fan mhm. cinq cent unités fois deux fois trois jours dina àgg trois mille unités trois mille unités yooyu rek buñ ko doon xayma ci xaalis mën na àgg daanaka quatre cent mille daanaka quatre cent mille francs mhm. te te ñett ñett yooyu yooyu nga koy jël xamuñu ndax dina arrêté wala du arrêté mhm. donc déjà gis nga loolu ni mu chéré te tey hémophilie matuñu daanaka quatre cent jël xam nga ñu matul quatre cent moom neex na ñoo jël en charge mm-hmm. donc déjà gratuité boobu ñu ngi ci ñaaxat encore déjà ma ma fàttali ne en deux mille dix neuf mm-hmm. inscriroon nañ garab si ci sur la liste de médicament d'urgence léegi li des rek mooy jënd garab yooyu xam naa nag ñoom ñu ngi ci ñu ngi ci ñu xool mais buñ ci buñ ci mënoon taxaw nu mu gën a gaawee au moins ñu xam ne gaa ñu ngi am doo waaye suñu gouvernement jëndal nañu stock boo xamante ne dèjà mi ngi Dakar te mën nañ ko tas ci biir réew mi mhm. bu ko defee ki nekk Koumpentoum wala ki nekk Tambacounda bu soxlaa du jar muy ñëw ba dakaar wala ñuy jële fii dakaar di ko ko yóbbul day fi mu nekk fa lay mën a nekk dem ñu defal ko traitement ni mu waree mu mën a àggale ay ay soxlaam. Euh, euh, bind ko depuis deux mille dix neuf pour mu nekk euh, médicament d'urgence deux mille dix neuf ba léegi ba xam jot ngeen ci am ay écho ngeen ci toll wala boobu ba léegi dañ leen bàyyi ci biir rek. bon euh, depuis deux mille dix neuf quand amoon na benn stock boo xamante ne gouvernement bi jundoon na ko bàyyi ko PNA mooy pharmacie nationale d'approvisionnement. mais boobu ba léegi nag déggaatuma ci dara bon ak euh, maa ngi ñu ngi naan ñu ñu ngi xool parce que modalité de paiement yi la ñu nekk di xool et cetera bon bëgguma ci xuus parce que aw ma ci information boo xamante ne lu leer la may baax ñu wax loo xamante ne tamit wóoruma mais li wér te wóor mooy euh, amaguñ ci lu ñu leer amaguñ ci lu ñu leer euh, gouvernement bi inscrire na ko ci liste médicament médicaments d'urgence mais ba léegi neewuñu ne ok chaque année gouvernement bi dina jënd temps ci facteur mettre ko à la disposition des hémophiles de façon gratuite pour ñu mën ko utiliser saa ñu ko soxla ba pare tasaare ko ci biir réew mi fi nga xamante ne hémophile am na fa ñu mën di ko jëfandikoo loolu moom dégg déggaguñ ko te ñu ngi ci ñu ngi profité di waat un appel vraiment Sonaled pour que ñu mën a dox ci mbir boobu wax ci bu ko defee gratuité boobu ak accessibilité bi mën a mën a am ci ci ci garab yi Euh, garab yi cher na prise en charge bi xam naa taxu ko demee noonu mais dellu si rek euh, ci li nga wax am ngeen ku ne association certainement jàpp ne def ngeen Sénégal wërngël këpp am ngeen wax nga ko ay cellules au niveau de Saint-Louis Fouta ak euh, Diourbel Fatick ñu bëggoon xam rek nga wax ñu explicitement yan région ngeen am ak yan région yéen xamante ne mbëbët mbëbët ngeen fa vraiment taxawal fa ay cellules boku ku feebar doo soxla def déplacement. jóge foofu ñëw ba Dakar ngir mën a am les premiers les soins ok euh, cartographie biñ ko defee euh, gis nañ ay région yu bari yoo xamante ne am na fa ay hémophile mhm. déjà initiative yi jël mooy installé nañ cellule Thiès installé nañ cellule Kaolack installé nañ Saint-Louis ak Fatick mm-hmm. ak Touba aussi mm-hmm. donc fu mu ne nii ñu ngi bëgg dem ci yeneen régions yi xam naa lu yàggul dara dinañ dem Ziguinchor mm-hmm. nañ dem aussi ci yeneen région yi pour mën fa installer yi nga xamante ne mooy cellule boo xamante dafay gën a yombal liggéeyu association bi parce que looy def rek boo ci amee proximité aussi dafay gën a yomb yomb ci ci ci yow ñu noonu mais nag euh, bëgg nañ aussi cellules yooyu buñ koy def ñuy accompagner ak des personnels médicaux yoo xamante ne compétents en la matière de de de de de, la prise en charge yu hémophilie mm-hmm. parce que souvent aussi mën nga installer cellule am cellule foofu mais personnel médicale bi nga xamante ne tey son sont bien outillés par rapport ak hémophile bi loolu dafay ñàkk te loolu tamit dafay faral ñu koy dañ dañ koy gis dañ mm-hmm. koy gis parce que da am hémophile boo xamante ne mi ngi ci benn endroit dem mm-hmm. bu ne hémophile laa rek tur bi dinañ ko xam moom waaw dañuy daal di ragal donc loolu bu ñu ci mënee dimbali aussi nga xamante ne au moins région yëpp dinañ ci mën a am des personnels médicaux yoo xamante ne euh, personnels médicaux yoo xam ne formé nañ ci hémophile hémophile bu nekk Kaolack wala bu nekk euh, Fatick wala mu nekk ba Ziguinchor du jar muy déplacé wu di parce que tey am nañ ay hémophile yoo xam ne ñu ngi ba Koumpentoum mhm. bu ñu amee soxla dañuy obligé ñëw ba Kaolack ndax ba loolu dafay metti déjà amoon nañ ci koo xamante ne malheureusement dafa nekkoon ci velam di jàngi mu am benn accident mhm. am fracture dañoo obligé andi ko ba Dakar pour mën ko traité mhm. mais alhamdulilah traité nañ ko sànq rek maay déggante ak papaam mi ngi naan mi ngi noonu di ñibbi mhm. donc loolu moom buñ ko mënee am dinañu dinañu arrangé trop ñu accompagner ak cellule ñi nga xamante ne association mi ngi def effort di ko teg loolu buñ ko combiné yaakaar naa ne dund yi hémophilie dina dina gën a a yomb. ndax euh, euh, cellules yi lu ngeen koy teg di ko mettre en place ndax ndax ndax yomb na. waaw euh, mën naa ne bon yombul yomb na parce que tey tamit ku wax association aussi mhm. dafay wax engagement. day wax engagement personnel. parce que association du loo xamante ne bureau la wala mu nekk structure boo xamante ne chaque weer da ngay fay. donc li il faut nga am ci benn engagement boo xamante ne engagement bu personnel la mm-hmm. te aussi il faut nga mën naa ne ñeme joono. Mm-hmm. parce que koo xamante ni toog na ba deux heures une heure du matin deux heures yaakaarul kenn ci ko xamante ne mi ngi ci cellule bi. bu la mm-hmm. woowee aussi mënoo lu dul taxawu ko. donc euh, mais yàlla mi ñuy suturaal boobu ba léegi aussi ñu ngi am des personnes yoo xamante ne c'est des personnes vraiment dévouées vraiment de passage ma leen di di leen sargal parce que aussi dañuy bàyyi seen lépp foo leen soxlaa ñu ñëw taxaw mm-hmm. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ciy jàpp ci mën mais xam association du ñàkk aussi fou nit booloo mm-hmm. mi ngi noonu daal mais alhamdulilah actuellement yi ñu jot a mettre en place yëpp vraiment ñu ngi ci gis ay résultats parce que euh, dépistage yeeg yooyu hémophile yi ñu ngi ñu ngi gën di di détecter ay ci ci ci région yi déjà ci journée mondiale bi rek le 17 avril bi ñu def mhm. waa may wax ne à travers sensibilisation yi def jot nañ détecté ñaar mhm. donc gis nga njëriñ gi mu am na ci ñëpp jàpp rek mhm. Euh, na si ñëpp jàpp dañuy des euh, ci côté boobu Abdoulaye Louma wax nga ko euh, xam naa ne def ngeen ci ay projet def ngeen ci ay progrès yu jéggi dayo mais tey ji bu fekkente ne dañoo toll nga am feebar boo xamante ne mun nañ ko fecc à quelques encablures mu mais situation bi demeewul noonu nga war a jóge dëkk ba dëkk tey même si c'est pas tout le temps évident ndax aussi quelque part amuñu fa benn retard je m'explique parce que dañuy farataal di wax la santé pour tous wala l'accessibilité l'accès aux soins pour tous tey jii loolu am na ñoo xamante ne dañu jàpp ne slogan la parce que des fois toutes les conditions sont réunies yow mi nga xamante ne da nga nekk ci benn kuréel bu xeex bépp benn jàngoro ndax jàpp nga ne la santé pour tous euh, nekk na loo xamante ne lu ñu mën a vérifier vérifier la Euh, ñu ngi ciy teg ay jéego mhm. waaye àggagu ci mën naa ne àggagu mais tamit nag euh, booy wax aussi boo gisee loo xamante ne safaat la nga wax ko boo gisee lu baax tamit da nga ko war a wax am na ay am na ay jéego ñu ciy teg loolu mën nañ ko wax parce que ñu ngi gis ne communication bi déjà pour xam euh, hémophilie ak yeneen mën naa ne yeneen feebar yi mhm. am na communication bu ci am mhm. loolu déjà man pour man pas la en man li may wax mooy tey boo tegee benn pas ni nga war a def mooy peneen pas bi ngay teg dafa war a nekk ci kanam mais pas ci ginnaaw loolu yaakaar naa ne buñ koy def pas par pas accès pour tous boobu accès aux soins pour tous boobu ngay wax dinañ ci àgg mais ba fi may wax ak yow nii mënuma wax ne am na mais quand am na ay jéego yoo xamante ne dañ waxal yàlla rek teg nañ ko te buñ ci continuer gëm naa ne mën nañ am espoir que ne dinañ ci àgg dinañ ci àgg mais ba fi may wax ak yow nii moom munu ma wax ne nekk na à cent pour cent Euh, euh, journée mondiale hémophilie ñu célébrer que le 17 avril mais dafa mel ni lépp lu jëm ci wàllum sensibilisation wala information des na euh, par rapport ak les autres maladies même bu ñu jàppalee date bi mais di nga dégg ñu ne paludisme dañ koy célébrer fii telle région lii ak lii ak lii mooy am wala dinañ def ay journée porte ouverte mu mel ni hémophilie bi bon euh, sensibilisation bi xaw na des moom moo waral peut-être euh, askan wi xamle wuñu li nga xamante ni moom moo di jàngoro tey boo ñu doon wax stratégie de communication ngir ñu gën a xam lan mooy jàngoro bi gën ko mooy moytu wala euh, gën a def ay mesures préventive lan nga ñu ci mën a wax jëm ci wàllum communication bi bien sûr. déjà stratégie de communication bu may wax. dama naan communication ci benn maladie ka muy hémophilie ka beneen muy drapa muy cancer warul rek yam ci journée mondiale te malheureusement c'est ce qu'on fait. loolu la ñuy gis. Mhm. loolu la ñuy gis journée mondiale la ñuy def euh, communication def tambour fu nañu wax def communication télé rajo et mhm. tout mhm. mais malheureusement bu weesoo rek dootoo ci dootoo ko déggaat bu baax. ñun suñu côté ñu ngi teg ay jéego yu yu mel noonu parce que tey euh, sa benn mbokk journaliste sax bu ma doon defal interview. bi may defal interview sax mën naa ne tuuti mu dóor parce que ni ma doon waxee naan hémophilie kenn du ko dégg journée mondiale rek bi ma toogee xool ñu waxtaan si suñu biir aussi ñu xam ne kii kat ah wax nañu dëgg te dëgg la tey ñu ngi wax euh, parce que association bi aussi def ci am rôle bu important ba mu ciy joué. Mm-hmm. moo tax ñun euh, de de janvier à date organiser nañ ay session de formation sur l'hémophilie mm-hmm. def nañ six régions def nañ Dakar. def nañ Touba def nañ Thiès def nañ Kaolack def nañ euh, Foundiougne mhm. Louga ak Saint-Louis mhm. def nañ ko donc loolu lu tax ñu koy def te bu ñuy dem aussi dañ ci ànd ak suñu ay support de communication déjà li ñu li ñu njëkkee mooy ki nga xamante ne hémophile la koy former mu xam lan mooy feebaram d'accord parce que hémophile bi moom tey moom mooy premier ambassadeur mhm. association sénégalaise des hémophiles ba tax na moom fu mu même bu expliqué wul ak ay termes yoo xamante ne terme scientifique la war na mën a expliqué loo xamante ne nit ku koy déglu ne dina xam kii li may wax lan la déjà ci loolu lañ commencé bu ko defee euh, parce que trois cent personnes yi nga xamante ne ay hémophile lañ buñ leen formé ci loolu ku ci nekk sa entourage boo ci waxee sa koñ nga wax ci fi ngay liggéeyee nga wax ci yaakaar naa ne sensibilisation bi dina dem fi ñu bëgg mu dem mhm. beneen aspect bi mooy Euh, am loo xamante ne mënuñu ko contourner mooy rajo yeeg télé mm-hmm. parce que fi ñaam am accès ñun amuñu fa accès mm-hmm. beneen aspect bi mooy réseaux sociaux déjà boo xoolee ak avénement Covid bi donc poussé nañu ñu changer suñu doxalin yu bari mm-hmm. bu daawaati jéeg bi suñu journée mondiale mën naa ne dañ ko digitaliser lu tax ma ne dañ ko digitaliser parce que dañu defar ay support de communication yu bari yoo xamante ne ci whatsapp bi dañ ko jaarale si mhm. statut yi ci facebook beeg yëpp mhm. mën ko tasaare donc pour revenir ci sa question rek stratégie de communication dafa nekk loo xamante ne c'est euh, communication en continu la war mais warul nekk communication ci benn laps de temps mhm. wala ci journée mondiale nga communiquer en fanfare nit ñi ñëw après jeex na loolu boo ko defee nit ñi dañ lay fàtte. Mm-hmm. te journée mondiale bi mën nga atteindre cible boo xamante ne euh, am na ñeneen ñu des. te boo ko yemalee foofu ñeneen ñu des ñoon noo leen di def donc ñeneen ñu des ñoon pour nga atteindre leen tey il faut da ngay continuer dans la sensibilisation di ci dox di ci wax foog ma ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko am ñu xam ko ñoom tamit mën ko expliquer bu ko defee ñi ko war a xam dinañ ko xam ñi ci war a jot dinañ ci jot sensibilisation boobu nag day nekk côté population il faut que nekk il faut aussi une sensibilisation côté corps médicale te loolu ki ci gën a gaaw mooy ministère de la santé loolu moom il faut que mu mu jàpp ci bu baax mu ne def ay spot wala mu def ay affiche yoo xamante ne peut-être dafay nekk ci hôpitaux yi ñu taf ko mm-hmm. ku dugg ñoo xool ah hémophilie hémophilie mooy lii lii même buur da ko da ko da ko jàll rapidement sax dina mën a des ci boppam bu subaa bu gisee koo xamante ne am na symptômes yi ay tànk yu neeweeg am douleur inf euh, chaleur beeg yooyu wala muy nàcc nàcc boo xamante ne yéex a arrêté xelam mën na njot ne ah man de am na lu ma gisoon bërëb sàngam est-ce que du loolu xaaral ma wax ko mu dem xool yaakaar naa ne noonu buñ ko doxalee moom vraiment ku ci nekk nag def li nga war a def mm-hmm. association na def li mu war a def mais gouvernement aussi à travers ministère de la santé aussi def li mu def bu ko defee li ñuy wax naan li benn leen ñaar ak ko daax bu ñëpp jàppee rek mu ñu xëccee day ñëw Euh, plus de sensibilisation plus de communication euh, pour euh, ñuy nga xamante ne ñooy askan wi xam lekk euh, jàngoro bi di hémophile wax nga ko ñi ko am bëri na mais certainement dafa nekk maladi boo xamante ne maladie méconnue la ñu ko xam daanaka bëriwul mais pourtant moo ngi ci société bi dañuy des ba léegi ci wàllu woowu Abdoulaye Loum wax ak wax nga ko sànq sa biir wax hémophile nekk na jàngoro boo xamante ne dañ koy dañ koy doonante dañ koy wàllante ci sa wéyjur ak ci say sœur ci say proche entre maanaam du du du lu lay du lu lay dab da nga koy judduwaale moo xam mu yéex a feeñ wala mu teeñ a feeñ quel que soit alpha ci gène yi la nekk tey mu nekk jàngoro boo xamante ne dafa nekk euh, c'est génétique Abdoulaye Loum ñu bëggoon xam rek ndax am hémophile euh, maladie euh, curable la wala da ngay jël traitement à vie wala à un certain moment da ngay wér mën a def sa occupation comme yeneen ñi waaw ma balaa may tontu ma dellu si waat rek ci naka lañ koy amee wax nga ko léegi feebar boo xamante ne dañ koy doon euh, yaa ngi koy jëlee euh, sa yaay ku la ku jigéen ki moo koy jox doomam bu góor waaye ku jigéen kooku moom mi ngi ko jëlee ci papam su ma jëlee tey exemple ci man mm-hmm. man su ma amee doom bu góor mm-hmm. moom du am hémophilie ah du ko am su ma amee doom bu jigéen moom du am hémophilie mais gène bi dina nekk ci moom sama doom bu jigéen boobu moom bu amee doom bu góor mën na ko am comme mën na ko bañ am du science exacte cinquante cinquante la ma ñëwaat ci rapidement rek. il faut nga dellu si ci parce que même man mii sax maa ngi lay déglu attentivement mais c'est un peu compliqué kon je j'imagine que ñuy déglu aussi il faut il faut ñu ñu ñu expliquer leen ko ñu dem ci Abdoulaye Loum. Euh, bu ma ko man dama sànq euh, ku jigéen moo koy transmettre ku góor gi feebar bi ci góor rek lay manifester woo. ci góor waaw mais ma préciser que ne Sénégal aussi am nañ ci ñaari jigéen yoo xamante ne ay hémophile lañ. mais lu ci ëpp tey su ma jëloon cent personnes. mën naa exagérer sax mën naa ne cent personnes yëpp yi am hémophilie ay góor lañu doon. Mhm. ku jigéen sa yaay. moo koy transmettre doomam bu góor mu manifester wu ci moom ku jigéen ki dina ko am mais du manifester wu mën na des fois nag ci ay nga gis muy mani am ay manifestation ci accouchement yeeg yooyu des fois day day am mhm. mais comme pour mu dagg nii muy saña du arrêté wala mu am blessure muy saña du arrêté loolu rarement nga koy gis excepté ci suñu ñaari hémophiles yu jigéen yi nga xamante ne moom lañ am fii ci Sénégal ma leen di nuyuwaale yaay ji moo koy jox doomam bu góor mu manifesté wu ci doomam bu góor mais yaay jooju mi ngi ko jëlee ci papam donc pour mu gën a leer damay jël exemple ci man man tey su ma amee doom bu góor comme doom bu jigéen feebar bi du manifesté wu ci ñoom sama doom bu góor du ko am mais su ma amee doom bu jigéen moom doom sama doom bu jigéen man moom bu amee doom bu góor mën na manifesté wu ci moom comme mën na bañ a manifester wu ci mhm. Mhm. noonu le cycle bi noonu lañ koy doonante mais il est pas dit euh, man sama doom bu jigéen bu amee doom bu góor automatiquement da koy parce que man am naa frère boo xamante ne amu ko. Mhm. da dem ci famille boo xamante ne da ngay gis dañu am doom bu góor mu am ko ñu am beneen doom bu góor du am. donc ça ça dépend. loolu nag mën nañ ko expliquer génétique mais boo ci boo ci boo ci xuusee te mu xaw a compliqué mais li nit ñi war a jàpp mooy tey hémophile bu góor bi bu amee doom bu góor wala doom bu jigéen feebar bi du manifester wu ci ñoom mm-hmm. mais doomu hémophile bu jigéen bi moom bu amee doom bu góor mën na manifester wu ci moom comme mën na bañ a manifester wu ci moom mm-hmm. donc noonu lañu koy euh, doon doonante bi noonu noonu noonu noonu la noonu lañ ko tëralee mhm. noonu la donc euh, euh, par rapport ak euh, sa question bi nga ma posoon sax fàtte naa ko. ba xam nekk na jàngoro boo xamante ne da nga koy faj tey suba mu wér wala da nga koy faj pendant six mois un an wala da ngay jël traitement boo xamante ne traitement à vie la. waaw ba fi may wax ak yow nii du feebar bu ñuy faj. da nga koy dund ak moom sa giirub dund. da nga mhm. koy am. du traitement bu ñuy ñuy faj mm-hmm. mais bu fekkee ne disponibilité garab yi am na mën na la faciliter tey yow sa dundin parce que loo xamante ne dafa manqué sa yaram la bu dee am nga ko nga koy jël fréquence bu régulier tey bu fekkee ne parce que am na benn programme aussi bu ñu tuddee prophylaxie. prophylaxie prophylaxie mooy euh, chaque semaine avant ak garab yu yi chaque semaine da doon ñëw jël sa injection. bu ko defee au moins ci semaine bi yëpp di nga am garab bi sa biir yaram bu ko defee même boo gaañoo nàcc nàcc bi mën na bañ a yàgg mu mu arrêté noonu lañ koy defee parce que maa ngi lay expliqué sax naan na garab bi ñu amoon vingt quatre heures la la def sa yaram ñu dem ba à un moment donné ñuy muy prolongé vie bi. Mhm. actuellement am nañ benn garab boo xamante ne moom lañ am mi ngi fi fam ni ma ko la waxee fédération mondiale moo ñu ko may boo ko piqûre da ngay toog weer. nga ñëwaat piqûre ko te loolu dafay tax li tax li manqué sa deret ba boo na amee nàcc nàcc du arrêté mhm. loolu dafay nekk sa yaram boo ko piqûre donc même boo amee nàcc nàcc mën na bañ a nàcc lu bari mu arrêté donc loolu loolu mooy mooy li nga xamante ne mooy mooy traitement bi ñuy bi ñuy def nii mais du du feebar boo xamante ne ba fi may wax ak néew nii déggaguma ne am na ko wér ci mm-hmm. euh, hémophile waaw euh, hémophile bu ñuy natt il faut ñu jël garab pour li nga xamante ne dafay mën a arrêter saignement bi tey il arrive que des fois ñuy signaler que peut-être banque de sang yi dafa am rupture ba ñuy inciter ñi nga xamante ne ñoom ñooy askan wi peut-être ñu dem may ji deret tey xam naa mënuñu wax jàngoro boobu te eh, defoo benn cri de cœur eh, par rapport ak eh, données du sang lan nga ciy wax. waaw hémophile moom daanaka mënul maye deret. waaye damay dégg ñu naan na nit ñi ñëw maye deret na nit ñi ñëw maye deret mais man dama naan na nit ñi ñëw may seen bopp deret. Mm-hmm. parce que yow deret bi ngay ñëw maye. bu subaa xamoo kan moo koy soxla. sa frère mën na ko soxla. baa mu doon sa sœur. wala mën na ne sax yow. Mm-hmm. donc geste boo xamante ne geste bu noble la mhm. donc nit ñi man pour man waruñu sax xaar ñëw naan lañ ñëw may deret mais li wër te wër mooy euh, na nit ñi di di dem di maye ji deret parce que ima yow xamal ne saa yoo mayee benn poche de sang rek sauver nga benn nit sauver nga bakkanu benn nit te poche de sang boobu mi ngay maye yow imaginel nga nekk ci situation boobu kooku nga euh, kooku soxla deret bi xam bu doon yow la di nga bëgg ku la may donc lépp looy def rek boo koy xool sa bopp yaakaar naa ne du metti pour nga def ko mais bon du ma du ñàkk ne ñi ñi xam naa piqûre gi la ñuy ragal moo tax lu faral di dem mais daal na na ñit ñi di gën a dem di maye deret parce que vraiment c'est c'est pour sauver des vies te am na ñoo xamante ni soxla nañ ko bu baax a baax a baax nañ ñëpp di dem di maye di deret Euh, chaque année dañuy màggal euh, à lim à l'instar euh, ci àdduna wër ngir këpp dañuy màggal bëccëg bi di jàngoro bi ñu jagli lépp lu jëm ci wàllu hémophilie xam naa Sénégal du des ginnaaw ndax chaque 17 avril du ñàkk am na peut-être ay manifestation mais ndax au niveau de ci seen association bi Euh, di ngeen di faratal en dehors de cette journée bi nga xamante ne moom mooy journée phare la organiser ay activités en parallèle organiser wax nga ko sànq di ngeen organiser ay séminaire de formation ngir nit yi xam lan mooy jàngoro bii di hémophile mais ndax euh, di ngeen koy faratal di def régulièrement ma moo xam une fois par mois wala euh, tous les quinzaines waaw yaakaar naa ne at yi ñu génn moom ak at bi kenn kenn kenn xas mhm. parce que en plus de journée mondiale bi ñu jëmal vraiment def nañ ay activités de sensibilisation def nañ caravane au niveau de de Kaolack de sensibilisation def nañ caravane au niveau de Thiès sensibilisation def nañ caravane fii di Dakar mhm. te journée mondiale 17 avril 2022 bi li tax mu mu gën a intéressant mooy dañu réaliser benn film documentaire mhm. boo xamante ne euh, jot nañ ko projeté sax ci journée mondiale bi mm-hmm. benn film documentaire de de de dix-huit minutes la pour expliquer lan mooy hémophilie ñi nga xamante ne dañu am hémophilie te ñekk biir région yi naka lañ koy dundee naka la traitement bi mel et cetera et cetera en plus de film documentaire boobu euh, defar nañ benn application bu ñuy tuddee Chatbox application boobu tey dalay permettre en français comme en wolof comme ni ñuy def ak WhatsApp rek boo ko téléchargé sa téléphone question boo ko posé ci hémophile mu mën la tontu jox la ci ay anam yu leer donc yooyu ay jéegalo yoo xamante ne tey mën naa ne teg nañ ko tey day contribuer bu baax ci sensibilisation bi mm. loolu aussi comme ni ma waxee sànq nouvelle technologie aussi ñu ngi ci ay capture yoo xamante ne lu neexal dugal la ci whatsapp beeg ci facebook bi ñu ngi koy def am nañ sama wàll man am na ay flyers yoo flyers yoo xamante ne dañuy expliquer lépp loo xamante ne hémophile la ak kan war a contacter ak fan mooy centre de traitement bi loolu lañ koy faral tam suñuy caravanes yi ñuy def di ko distribuer man personnellement am naa ci sama oto bu ma séenee pharmacie wala ma dem ci benn dama koy gànnaayu mhm. bu ma demee bàyyil leen ko waxtaan seek ñoom mhm. ñoom da ngay gis aussi dañ daf leen di intéressé parce que dañ naan tur bi xamoon nañ ko jàngoon nañ ko bu ñuy dem xawma ban année de médecine mhm. mais après fala yam <laughs> fala yam donc da ngay gis ne mi ngi mi ngi mi ngi dox te ñu ngi ciy gis ay résultats parce que dangay ngay jékki-jékki euh, ñu woola wala ñu bind la ci réseaux sociaux yi ne la ah man kat sama doom bi wala sama mbokk bi gis naa ne lii ngay wax nii am na ko bu ko defee nga waxtaan ak ñoom orienté ko sans transfusion sanguine bu ñu demee ñu def test yi te bu ñu defee test yi après dañ lay woo ne def na ko mais finalement il s'avère que ne hémophile la mm-hmm. donc acte yi ñu ngi koy posé te ñu ngi gis aussi ay résultats en termes de dépistage beeg ak ak yooyu yëpp mi mi ngi noonu loolu ñu ngi ciy ñu ngi ciy dox di ci wax di ci def lu lu bari récemment rek am nañ benn spot boo xamante ne ministère de la santé moo ko def aussi yónnee nañ ma ko donc yooyu ay jéego yoo xamante ne daawul am mi ngi am donc ñu ngi am ay ay ay vraiment ay acte de sensibilisation ñuy def foo xamante ne c'est en dehors des journées mondiales de de l'hémophilie et ça porte ça porte ses fruits mm-hmm. mi ngi noonu mm-hmm. année bu nekk da ngeen di choisir euh, benn thème ren ngeen choisir woon thème comme thème partenariat accès pour tous partenariat politique progrès associé nos gouvernements intégrer la politique dans la politique xawma euh, seen thème bi dafa xaw a gudd nag auditeur dinañu dinañu dinañu di waaw nga ñëwoon bi waaw. Euh, at bu nekk at bu nekk da ngeen di choisir euh, benn thème ñu bëggoon xam ren euh, thème bi ngeen choisir lan la ak pourquoi spécifiquement thème boobu. waaw spécifiquement tey thème bi mi ngi nekk accès pour tous partenariat politique progrès associer les gouvernements intégré les troubles héréditaires de la coagulation dans la politique euh, nationale. dëgg la gudd na mhm. waaye li mu tënk tamit bari na mhm. parce que dafa nekk loo xamante ne sensibilisation bi ñuy def pour nit ñi xam ko la mhm. te nit ñi pour ñu mën ko xam il faut nga associer li il faut ñu ñëw bokk yow association booy def sensibilisation am na foo xamante ne peut-être fa nga mën a yàpp gouvernement loxoom fi mu mën a àgg ak gaawte bi mu mën a am yow amoo ko donc il faut nga intégrer gouvernement yi partenaires yi aussi ñoom ñoo ñuy dimbali pour ñu mën a am tey nga xamante ne euh, moyens yi ñu war a mën a am pour déjà dimbali ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw loolu mooy benn te aussi def action de sensibilisation ak dépistage yi ngay tax nga mën a xam ah diw ak diw ak diw am na hémophilité te koo dépister rek jàppal na yow de mën naa ne da nga ko sauver parce que ku xamul feebar bi ngay nàcco tout le temps dafay dafay dafay dalay jaaxal dalay jaaxal ci naka da ngay gis ay famille yoo xamante ne dañuy jékki-jékki wala téléphone leneen foo ngeen toll leneen wax amin parce que man lii yaakaaroon naa ne tey dama ci wéet. Mm-hmm. dama ci wéet. am na ci sax koo xamante ne tey biñ ko gisee yàggul mais moom dafa newoon dafa naroon bàyyi liggéeyam parce que nga foogoon moom ci àddina bi doomam rek moo ko am. Mm-hmm. des fois nga gis famille yoo xamante ne tamit dañuy sikkal yaay ji naan la sa doom nitu guddi la mhm. yooyu dafay am yoo xamante ne dafay dafay métti tey ci film documentaire am na ci ay témoignages yoo xamante ni boo ko déggee dangay ngay da ngay jooy dangay jooy am na ci koo xamante ne mi ngi fu sori la nekk ci biir Sénégal mhm. diggante treize ak dix-sept heures la ñàkk ñaari doomam parce que da xarafaloon xamu ko ñuy sañee ba ñàkk seen bakkan donc li tax euh, thème bi ma wax ni boo gisee dafay dafay dafay ëmb loolu yëpp dafa bëgg partenaire bi ñëw jàpp ci sensibilisation bi gouvernement bi def ci wareefam euh, nga intégré si yi nga xamante ne ñu dugal ci ci ci maladie hémorragique dugal ko ci politique de santé yi mm-hmm, mm-hmm. ba nga a xamante ne du ay journée mondiale lañ ci wax wala à des des lu lu munti am rek dañuy xam ne ah hémophilie wala drépano wala maladie héréditaire yi tey euh, maladie sa euh, kii euh, sanguine sax laay wax mhm. bokk nañ ci politique bo fuñ ñu leen munti wax duñ leen fàtte tey boo xamee boo gisee yenn ji bu amee wala yenn comme pandémie bi tey boo xoolee boo jëlee dix spécialistes yoo xamante ne wax nañ ci man ci ñi ma jot a déglu ñëpp professeur Saliou Diop rek directeur synthèse mhm. laa dégg wax ci hémophilie apparemment moom kese moom bu bu dul moom kese tamit bëriwuñu. bon euh, parce que ñun bu ñu soxlaa information par rapport ak ku ñuy wax les symptômes causes yi. moom lañ ñuy jox donc bu la rëccee ci dafay compliqué. xam nga loolu c'est problématique. Mm. c'est problématique muy moom muy professeur Seck wala docteur yi fa nekk infirmier ma profité di leen remercier de passage parce que vraiment amuñu seen fay. Mm-hmm. à part ñooñu doo mënoo orienté wu ci keneen pour wax ci. te hémophilie néewuñu Dakar rek te ñoo ñu ngi basé wu Dakar mhm. donc mën na nañ ko dugalaat ci politique de santé yi de telle sorte que à chaque fois dañ ciy wax di ci def euh, s'il le faut ay séminaire di ci wax du nekkul hémophilie rek maladie maladie hémorragique yëpp la yëpp dañ ci war a wax parce que tey ba wax maladie hémorragique di nga wax hémophilie di nga wax di nga wax euh, maladie sanguine sax laay wax di nga wax drépano di nga wax yeneen ak yeneen ay thrombose ak mhm. yooyu yëpp dañ ko war a dugal di ci di ci communiquer nit ñi mën ko xam du ay maladie yoo xamante ne ay maladie de de de riche la comme ni ñu koy wax gis ni ñi même les plus les populations les plus démunies dañ koy rencontrer foofu da ngañ koy gis mais xamuñu ko nga jug tamit dem ci benn poste de santé wala nga dem ci benn hôpital boo xamante ne xam nañ tur waaye xamuñu ko sa pose problème donc loolu lu koy mën a faj rek mooy ñu li ñu cité nii yëpp ci thème bi ñu mën ko tënk def ko te loolu dafay euh, finalité mooy sensibilisation bi dafay gën a Euh, àgg fi mu war a àgg dafay àgg niveau population dafay nàgg aussi corps corps corps médical. Euh, mu mel ni diagnostic yenn maladie yi yoo xam ne maladie sanguine wax nga ko euh, lu ci mel ni hémophile wala drépano balaa ñu koy diagnostiquer rek dafa mel ni c'est trop tard ndax amuñu possibilité bi teel ko teel teel ko desel ndax yaa ngi wax léegi am na ñaari tuut tànk yoo xamante ne dañoo génn àdduna à l'espace de quelques heures te xam naa njortuñu woon ne wala xamuñu woon ne sax. am nañu jàngoro boobu. waaw ma ma ma ma ma dugg tuuti rek bon du ma si spécialiste parti côté médical bi tey su ma jëlee exemple tey booy xarafal xare. Mm-hmm. war nañ la exiger nga def test bi. ba xam ndax hémophile la wàllu hémophile tey su ma jëlee aussi côté côté maternité suñu suñu suñu maman yeeg suñu sœur yi mm-hmm. tey avant l'accouchement aussi war nañ mën a def ay yenn tas yu xool ba xam ndax amul euh, trace boobu noonu am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne tey boo amul toogaloon médecin dina la mën a génneel panoplie wu test yoo xamante ne boo ko defee buñ ko dugalee ci circuit bi ñu ne ah balaa ñuy def telle chose dañu war a def test yi bu xool ndax kii est-ce que amul maladie hémorragique buñ ko loolu buñ ko defee mën na faj lu bari parce que au moins di nga doo doo nekk médecin après la mort. Mm-hmm. parce que xarafal nit koo xamante ne hémophile la defaloo ko facteur xamoo ne hémophile la muy sañ a xamoo noo koy defal ba mu jaar fi ñàkk bagalam noonu leneen la. Mm-hmm. donc c'est des c'est des euh, bon entre guillemets des ay ay affaires yu ndaw yoo xamante ne buñ ko mettre en place ça peut ça peut sauver énormément de vies. mënoon na éviter lu bari donc il faut que euh, côté prévention yooyu ñu gën ci gën ci gën ci gën ci gën ci taxaw gën ci taxaw gën ci def liñ ci war a def parce que médecin yaa ngi fi tey paradoxe bi may wax tey su ma jëlee toujours hémophile Sénégal centre de traitement euh, mën naa ne mondial la l'hémophile tey boo jëlee sous la sous-région mm-hmm. ku ñuy former ci hémophile on lay envoyé Sénégal te boo ñëwee Sénégal y a beaucoup de gens qui ne pas l'hémophile xam nga loolu dafa Sénégal la ak Afrique du Sud centre de traitement de l'hémophilie pour l'Afrique sous région ku soxla xam dara ci hémophile na la naan demal Sénégal boo ñëwee Sénégal tu de des personnes yoo xamante ne xamuñu hémophile donc yooyu tam war nañ ci mën a mën a taxaw ñun suñu boor ñu ngi ci def liñ ci war a def mooy li ma wax sànq rek nag ku ci nekk bay waaram bu ko defee population sénégalaise moo ci moo ciy gagné Euh, waxtaan bi am na solo échange yi xam naa auditeurs yi ñuy déglu du ñàkk ne am na leçon yu bëri yoo xamante ne tiire nañ ko ci mais Abdoulaye Loum euh, mu mel ni waxtu bi dab nañu. waaw waaw ah, euh, doo sentir sax ne waxtu bi dem na la parce que vraiment booy échanger ci yenn sujet yoo xamante ne da la tenir à cœur moom mm-hmm. nga am ko nga ñàkk am te loo xamante ne c'est d'ordre national. Mm-hmm. day day dafay da nga ciy da nga ciy gën a ànd ak ànd ak Pastef daal ci gàttal mais mais di di di di remercier auditeurs yi vraiment di la remercier yow Fatou parce que au moins euh, jox nga ñu benn panel boo xamante ne mën nañ ci wax waxuñu lépp mais wax nañ ci l'essentiel si ñu li ñu yaakaar euh, yaakaar naa ne buñ ci amee ay jumte aussi ñi nga xamante ne peut-être ñu ngi ñuy déglu te ñu xam ci ëpp ëpp ñu ci xam-xam tey dinañ ñu mën a gindi mais en tout cas di di di remercier autorité yëpp di lancer waat un appel au gouvernement sur la disponibilité et l'accessibilité de de de des facteurs des concentrés de facteurs yi nga xamante ne mooy garabu hémophilie nañ ñu lillahi wara rasuli nañ ko jënd defal ñu de façon gratuite yombal ñu tamit accès bi ci ci ci Sénégal bi yëpp te aussi. Euh, dimbali association sénégalaise des hémophiles ak synthèse ba nga xamante ne liggéeyu décentralisation bi ñu commencé ñu mën ñu ci appuyer ba ñu mu gën a mën a yaatu bu ko defee ñëpp mën ci jot te vraiment di di di baalu ñëpp àq ci weeru koor gi di leen baal àq te di di di leen aussi si ci invitation bi ñu defal te di wax ñëpp aussi ñu gën a communiquer ci maladie hémorragique yi rawatina hémophilie wala drépano bu ko defee ñëpp mën ci jot bu ko defee ku ci nekk daal mën ci bay sawar sant ko gërëm ko moom Abdoulaye Loum dellu si na ci li nga xamante ne certainement moom mooy di seen cri de cœur par rapport ak gratuité médicament waaye surtout accessibilité bi nga xamante moom moo soxal euh, garab yi nga xamante ne dañ koy jël déglu ngeen ko ci émission bi du garab yoo xamante ne dañ la koy prescrire nga dem jënd ko au niveau des pharmacies nono non duñ ko amee noonu donc la ñu koy mujj amee loolu lépp ci certainement ay partenariat la mu mel ni nag cri de cœur bi du ñàkk ñi nga xamante ne ñooy déglu euh, dinañ ci mën a wastu ak sant ko bu baax gërëm ko moom Abdoulaye Loum fàttali ne moom Abdoulaye Loum mooy président de l'association sénégalaise des hémophiles du Sénégal moo nekkoon suñu tey ci suñu émission bi di SOS santé e fàttali ne SOS santé Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi e Bachir si nekk ci xarala bi jërë ngeen def ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité